Assalamualaikum, cheikh ami internet bu Dakar net dalati leen ak jàmm dige bor la ñoo leen ko digoon fu jaar waxaat leen ko muy top actu di seen rubrique bi nga xamante ni lépp loo xamante ni mooy actualité bu faar dañ leen koy jël daal di ci forom fàccal waaye duma ci wet dama ciy ànd ak leen tout sable am ami. Mhm. David maa ngi lay nuyu. maa ngi lay jaar baax tey ni nga def waaw tey ni bel di bel bela. waaw ah. te yow moom kuy ànd ak yow ko ngay defal. tu tu sens nag que ni sama bula tey baax. waaw bële bi génn na trop. samay lunettes. Mhm. lépp jàpp na waaye sa bu baax na de. waaw merci waaw ah, nuyoo. jërëjëf ayca mënuñu ñi nga xamante ni mooy euh, suñuy xaritu internet ñi nga xamante ni miin nañu rendez-vous bi di ànd ak ñun tous les samedis ñu dégte leen xibaar yi nga xamante ni ñoo fi gënoon na fees ci ay bés yu ñu génn David comme ni nga ko waxee loolu lay demee mooy lépp loo xamante ni moo soxal politique ak moo soxal économie ak lu mu ci mënti doon ba ci sax santé lépp dañ ko ciy laal waaye tamit Dakar net la a fës koy dooree ak tiis yi xamante ni daal dinañuy wàcc ci bile semaine ñu dooree ko ak génn ak àddina ki nga xamante ni mooy Abdoul Aziz Mbaye nekkoon fii jëwriñ jëm ci wàllu caada ak cosaan David noonu la demee jëwriñ jooju nga xamante ni moo doon wuyoo ci turu Abdoul Aziz Mbaye ci membre APA waaye tamit ci fàttali rek rek nekkoon ni tamit jëwriñu eh, lii di soxal wàllum culture ci fàttali rek atam tolloon na ci 67 ans waaye tamit leneen li nga xamante ni mën nañ ko wax ba tey nekkoon na premier directeur cabinet kii di président Macky Sall fii rek nag boobu équipe Dakarnet yëpp ñu ngi koy jaale. Mm-hmm. ñu ngi leen di jaale waaye tamit beneen tiis euh, di génn àddina ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Sy nekkoon doom ci ki nga xamante ni mooy Serigne Mansour Sy. ni nga ko waxee it noonu la mhm. turam di wuyoo ci suru Serigne Moustapha Sy Jamil ibn mhm. Serigne Mansour si borom daara yi mhm. moom it mu bàyyee koo fi daal di dem ca Barzak ca këru dëgg yi ñuy ñaanal ko tamit fa nga xamante ni fa lay dem cet ba ñu ko faa jiitu waaye tamit ci fàttali rek moom Serigne Moustapha Sy Jamil daal doonoon doomu Serigne Mansour Sy borom daara yi fa nga xamante ni fa la faatoo bokk na ca foofu ca diwaanu Ndakaaru waaye tamit jaal ga ñu ngi koy nangoo ca point E fii rek boobu nag ñuy fàttali ni mbokk yi jamono ji ñu ngi ko denc ca watu baayam di Serigne Mansour Sy borom daara yi. Mhm. foofee la ñu ko denc. ñu toftal ci leneen jëm ci wàllum politique nga xamante ni ñu ngi koy waxtaanee ni ki barki démb di mbiral Ousmane Sonko mi nga xamante ni dañu koy tuumaal viol toftal ci menace de mort David. ni nga ko waxee njiital Pastef bi di Ousmane Sonko mu nekkoon ancien inspecteur de impôts waaye tamit ci fàttali rek at ba nga xamante ni la tàbbee ci politique muy atum 2014 fàttaliwaat rek moom Ousmane

section bu recherche jamono ji ñuy wax ak yow nag lépp muy procédure bi mu ngi nekk ci loxol yoon. Mm-hmm. mu ngi ci loxol yoon waaye tam ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko daal di nay uh, génn wax ak ñi nga xamante ni ñoom la sekkal liggéey bi daal leen uh, wax ni seen xel mën na dal ndax loolu ñu koy tuumaal amul benn yoon waaye lu ci mënti am rek yoon mu ngi def liggéeyam ñu tàbbi ci leneen uh, jëm ci wàllu wëy. ki nga xamante ni moom la ñuy dàkkantali euh, la voix d'or mi nga xamante ni mooy Kumba euh, Gawlo sekk moom nag daal dinay def benn vidéo di wax ni wëy daal euh, da koy tegandi ba ci kanam li ko waral du lenn lu dul jagadi bu mu yëg ci yaramam ci loolu la demee ab vidéo bi nga xamante ni moom Coumba Gawlo naan ko La Diva daal di na koy yëkkati jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo koy safoo ak di koy ndamu xamal leen ni kat ni jamono ji yaramam dafa sutante ginnaaw ab opération boo xamante ni jotoon na ko def ba ña koy saytu daal di ko ne lii di way na ko tegandigum ngir kan mu daal di maintenir li nga xamante ni mooy état de santé am fii leen nag ak boobu ba tey ñun ñëpp ñu ngi maase di koy ñaanal yàlla may ko wér ak tan bu baax a baax. Mhm, yàlla may ko wér ak tan ba mu mën a dellu si waat di ñu bégal ndax kat bu ñu euh, juumulee euh, daal na fi def ay jiwo yu bëree bëri bëri ak ay artistes national comme international def na ay jéego yu bëri ci euh, wàllum musique ci wàllum musique dañuy bàyyi wax ca la nga xamante ni moo xew foofu ca fan okka mm. mm. suuf la wàllum xëccoo kër fële ca fan benn famille bu ñuy wax fami ñing ñoom nag na ñuy jote seen biir ba nga xamante ni kër gi dañu ko jaay ñenn ñi dëkk ci ñeneen ñi génn waaye jamono ji nag police moo fa wàcc ngir ñi nga xamante ni ñam ña fa nekkoon daal di génn bile kër ndax ñenn ñi dañu ko jaayoon loolee nag daal di jur coow ba ñu nekk di xeexoo seen biir police daal di fay ñëw ngir àtte leen loolee nag daal di jur euh, ñu daal teg loxo ñett ci ñoom ba jamono ji ñuy àddoo kër ga dañ leen a génnee ba kër ga dañu ko mujje daaneel jamono ji dara desatu fa te ñoom ñëpp génne nañu leneen li nga xamante ni moo gën a fës ci wàllu Mhm. ci wàllum euh, fait di divers euh, ñu jëm fële ca yow tongoor la fa xew daal di doy waar lool nekk euh, benn njaboot nga xamante ni ñoom ñëpp dañoo génn àddina ginnaaw ba ñu doon cuuraay seen ab néeg cuuraay googu ci la ñuy des ku xam période bi période sedd bi nga xamante ni ku ci nekk dina fexe ba xool ana na lay def ba néegam daal di tàng moom soxna si wuyoo ci turu Adama Bari ak ñaari doomam ñu daal fay jaar ñàkk seen bakkan ci ginnaaw fenêtre yi nga xamante ni tëj nañ ko rawatina néeg daal di taal seen ànd cuuraay boyal ko ba néeg ba xër loolu moo leen jël yóbbee ñu mm-hmm. daal di xam ba moo leen yóbbu ca barzak boobu nag la def ab alerte ñii di sapeur pompier ñu leen di ñaanal nag jamono ji suñu borom mu at leen ci yërmandeem. Mhm. suñu borom àtte leen ci yërmandeem waaye tamit ñu jàngat ci leen rek jamonoy seddaay bi nit ñi dañuy utiliser cuuraay lu baree bari. Mhm. xanaa ñu ci euh, def ndànk-ndànk rek lu mu sedd sedd ñuy def ndànk xam naa sama mbokk séeréer yi la rek. waaw surtout nag euh, ñi nga mhm. xamante ci ko ci mel ne Vito. xam nga temps yi ko daal pour mu ciy bàyyi xel daal. waaw bëgg na ko lool waaye na ciy dem ndànk rek lu ci mënti am rek euh, danger am na ci surtout ñi nga xamante ni dañuy am ay maladies pulmonaires lan li may tàggoo mooy rek di remercier ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak ñun depuis boobaak léegi ñoom mi nañu rendez-vous bi tous les samedis ñuy ànd ak ñun ngir ñu dégtal leen li nga xamante ni mooy xibaar yi gënoon a fës ci ay bés yu ñu génnoon xanaa di leen jox dig daje euh, samedi bi yi ñëw incha dig daje la leen di jox man ma sant yàlla julli ci yonent bi sangub-sang yi di gërëm waajur yi waaye tamit di gërëm ñi nga xamante ni ñoo tax ñu fës ñoo tax ñu feeñ équipe bi nga xamante ni ñoo nekk suñu ginnaaw ki nga xamante ni moo ko jiite di Abdou rawatina nag lentu nee neena mooy sama princesse sans cesse avec justesse ak politesse mm-hmm. muy di bisou mm-hmm. kon noonu laay def à maa ngi leen di béggee ba beneen